ñu bari suñu amee jàngoro Ebola te nekk ci kër doktor yi dinañu ci mucc te dinañu wer Ebola ab feebar bu garaaw la waaye su nit ki weree docteur bi dina ko saytu te suñu gisee ni feebar bi dem na dina ko bàyyi mu ñibbi ki amoon jàngoro ji te ñu bàyyi mënula wàllante Ebola jàngoro ji génn na ci yaramam te mënula wàll kenn du doomam du njabootam du nit ñi toog ci wetam ci taksi walla kaar waaye waay dencante yi dañoo wara a seen bopp mbaa ñuy jëfandikoo kawas suñuy sëy lu tolloog ñetti weer doore ko ci bés bi ñu leen génnee ci kër doktoor te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi dinañu mën a aar suñu bopp ci Ebola